ndax nee na lii lu mu doon xaar la itteem la woon bëgg-bëggam la woon nee na nag lii nekkul ne dañuy def bi maanaa teg doon du baaraamu tuuma kenn ne dañuy def procès ma sàmba mbaa procès ma demba nee na daal am na lu fi xew am na ay doxalin yoo xam ne ni amul moom ak Moustapha Niass ndeysaan président ancien président de l'Assemblée image bu rafet xaali nee na moom njiitu réew mi am na loo xam ne doon nañ ko fi gis te ndéem dañu bëgg nag mbir mi am jox jéego yoo xam ne da koy jox muy dem ca kanam fokk itam ñu bàyyi xel sukkandiku ca loolee nga xam ne nii moom moo fi xewoon la nag nee na du am solo mbaa du doon itte ngir ñuy ñëw naan diw moo defoon li ma sàmba moo defoon li maa moo def moo defoon laa ndax ku nekk xam nga la nga def ku nekk itam boo wéetee ak sa gànnaay itam li nga xam li nga xam ne nii moom moo fi nekk waaye li am solo daal mooy lii doon na loo xam ne ni dafa indi baatu diisoo ndax nee na diisoo ak waxtaan ak sottante xalaat bokk keppaar nee na ci am réew di doxee ci la ñuy tabax am réew. suñu cosaan la nee na loolu suñu cosaan la. Mm. nee na waxtaan yi nga xam ne nii nag moom moo doon waxtaan yi dafa bokk ci loo xam ne nii bu ñuy wax wàllu yoon ak dafa doon ay kenn yoo xam ne ni moom mooy doxal ak nguur nee na nag waxtaan woowu ak diisoo boobu même nimmiku nañ ko ci plateforme bi nga xam ne moo doon plateforme jubbanti plateforme jubbanti boobu nga xam ne mboolem ay tawat ay ñaxtu ak ay loo xam ne ay lëj-lëj la ak ay rëq-rëq yoo xam ne nit ñi gis nañ ko mu doon ay junniy junniy tawat ak jooytu yoo xam ne nii itam ñi indi nañ ko foofee doon loo xam ne itam ay suñu mbokk yi nekk présidence ñoom ñoo ko def nee na nag lii doon système judiciaire li nga xam ne ni moo doon suñu taxawaay ak suñu doxalin loolu dafa doon loo xam ne ni